waaw maa ngi leen di sant d'abord di leen gërëm tey euh, suñu ñëw fii euh, ñu jox ñu en tant que parrain ñu ñëw fekkee li nga xamante ni moom la waa centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de Thiès woote fii muy ñuy xalaat naka la ñuy def ba entreprise yi nga xamante ni dañoo juddu dañ leen a créer naka la ñuy def ba duñu gaaw a daanu parce que dañoo rencontré ni euh, suñu dëkk bi entreprise bu jóg tey balaa muy def benn at wala ñaari at tëj te loolu je pense que ni tey ñun ñëpp am nañ ci seen responsabilité réfléchir xool yan yoon la ñuy jël pour accompagner des entreprises surtout nag état am am na si wàll. moo tax tey ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wootee ay incubateurs ñi nga xamante ni dañ ñooy structures yoo xamante ni dañ fee teg pour accompagner entreprise yi si seen création si seen juddu mais également accompagner leen durant tout leur. processus pour que euh, entreprise yooyu mën a am taxawaay si biir réew mi. moo tax ñun en tant que chef d'entreprise ñu ñëwoon tey vraiment indi suñu contribution pour wax ni surtout euh, entreprise yi nga xamante ni ñoo ngi doog a démarrer mooy start-up yi war nañ leen a accompagner par des moyens d'abord des moyens financier accompagner leen jàppaleen leen ba entreprise yooyu mën a am. taxawaay parce que dëkk de euh, bu ñu accompagné wul entreprise du ñu mën a am surtout faire la promotion de l'emploi même ndax tey entreprise yi juddu ñooy créer ay valeur mais également ñooy créer emploi ñëpp xam na ni ren ji entreprise yu bëri am na ay difficultés ndax euh, feebar bi nga xamante ni moom moo fi ñëw mais euh, également am nañ yaakaar si le plan de relance bi nga xamante ni euh, le président Macky Sall lu woote na ko mais récemment aussi woote na pour jàppale ndaw ñi si wàllum xëy mais aussi si wàllum créer liggéey je pense que que ni tey tey li ñu fi wax nekk réflexion bi bi ñu fi wax dina tax nit ki soo amee société soo amee entreprise di nga xam euh, naka nga koy gérer ba ëllëg doo am ay jafe-jafe. li si ëpp mooy sunu ndaw ñi nga xamante ni dañ leen di jox ay jumtuwaay pour ñu créer ay emploi du ñu mën a am ay repères ndax tey bon comme ni nga xamee da ngay créer sa entreprise même pas un an ñu commencé di la fayloo ay impôts di la fayloo ay taxes di la fay je pense que tey état bi war na may entreprise yi délai au moins cinq ans boo créer sa entreprise ñu bañ la fayloo dara parce que tey. boo ñëwee un rek waa impôt ñëw waa de économique ñëw ñaareel ak ñëw loolu mën na décourager loo entreprise bi looloo tax ñuy ñaan ay état bi vraiment ñu créer benn cadre boo xamante ni dinañ may prise ay franchise yoo xamante ni fii ak cinq ans di leen bàyyi ba ñu dëgër loolooy tax entreprise yi mën a am taxawaay. Charlotte Ndaw Diop man maay directrice centre d'incubation bi. bon jeunes yi ñuy former euh, dañ leen di jël dugal ci ñoom xarañte yokk seen xarañte yokk seen pas-pas pour que ñu mën a euh, gën a defar seen entreprise defar seen seen idée de projet euh, pour entrepreneurs yi aussi dañ leen di jàppale pour que entrepreneurs yi nga xam entrepreneurs yi nga xam ni Covid bi par exemple dañ leen da leen affecté dañu soxla yëkkatiwaat seen activité yëkkatiwaat seen chiffre d'affaires donc ñooñu la ñuy jàppale amuñu nag benn euh, benn choix ci ci ci ci euh, kiiwu projet yi euh, les types de projets on n'a pas de choix sur les types de projet on prend tout type de projet oui l'essentiel c'est que le jeune soit motivé waaw ah parce que centre bi dañ leen defal connexion boo xam ni fu ñu toog dañuy am connexion fu ñu toog dañuy am connexion table de travail dañu leen koy équiper y a des dañuy ñëw toog liggéey y la connexion am na euh, espace café ndox yëpp dañ koy utiliser donc charge yooyu ku ne xam na ne dañ koy fay moo tax ñuy ñuy ñuy jël ci ñoom fay bi ñuy fay ci centre bi pour ñu mën a supporter charge am na ay coach yu leen di accompagner aussi coach yooyu ñu ngi nekk ak ñoom chaque jours di leen accompagner di leen guider di leen orienter donc loolu aussi il faut ñu fay leen moo tax ñu def établissement bi mu nekk privé pour ñu supporter charge yooyu tegu suñu kaw voilà. je suis Lassana Gagny Sakho je suis consultant. d'abord je vais dire que je suis là en tant que parrain du centre d'incubation de Thiès. Euh, je pense pas que la mise en place de centres d'incubation soit liée à la Covid, je ne crois pas. Euh, l'État met beaucoup d'argent pour financer les jeunes. Aujourd'hui, on parle de 450 milliards de francs CFA, mais seul critère, c'est on a mis sur la table? Le critère le plus important devait être combien ont survécu et combien Parce qu'il manque un élément important dans la chaîne, c'est qu'après que je donne l'argent aux jeunes, qu'est-ce qui va se passer et c'est tout le centre du centre d'incubation qu'a mis en place Cheikh Diop euh, qui va permettre d'accompagner tous ces jeunes qui ont bénéficié du financement de l'État ou de tout autre organisme pour s'assurer que l'activité est pérenne, pour s'assurer que demain, euh, euh, pour s'assurer que demain il y aura une valeur ajoutée. Et je crois que c'est tout le sens du centre d'incubation. Euh, je pense qu'il faut le féliciter parce que le Sénégal ne s'arrête pas à Diamniadio. Euh, prendre l'initiative de dire je mets mon centre d'incubation à Thiès a beaucoup de sens. Parce que le jeune à qui vous donnez un million de francs, vous ne pouvez pas lui dire d'aller à Dakar tous les jours pour voir un centre d'incubation. Je crois que si cet exemple est répliqué un peu partout, on aura peut-être moins de difficultés pour régler la problématique de l'emploi des jeunes. C'est une très bonne initiative à encourager, je crois. Le chiffre doit interpeller, interpeller tout le monde. Tout, tous les jeunes ne sont pas des entrepreneurs nés. Ça n'est pas possible, c'est des vocations. Ça, c'est la première. La deuxième question, c'est que nous avons un environnement qui n'est pas forcément propice aux PME. Il faut vraiment se poser les questions. Par exemple, par contre, là, le rôle d'un incubateur, c'est peut-être que si on avait des incubateurs et accompagnait tous ces jeunes, au lieu de tomber à 60% de mortalité, on serait peut-être à 40, à 50 personne ne vous suit en réalité. Et, je pense que c'est important de dire mettre en place un centre d'incubation, ce n'est pas le rôle des projets de l'État. Parce que le rôle d'un projet, c'est fait pour une durée. C'est fait pour un an, deux ans, trois ans. Lui, il vous accompagne un entrepreneur pendant dix ans. Et je crois qu'on doit, on doit encourager, féliciter ces initiatives qui sont privées. Les gens doivent payer parce qu'ils vendent un service. Je pense qu'il ne faut pas regarder ce que vous payez, mais il faut regarder ce que le centre d'incubation vous amène. Ce qu'il vous amène, c'est assurer la pérennité de votre activité. Sur ces, ça fait partie des problèmes. En fait, on parle de taux de mortalité des entreprises. Mais, mais, la fiscalité fait partie. Les coûts de facteurs de techniques de production comme l'énergie, la main-d'œuvre, elle fait partie également. Je pense que c'est un ensemble de paquets sur lequel l'État du Sénégal doit travailler. si on va arriver à régler le problème de l'emploi des jeunes, encore une fois, c'est le rôle du secteur privé. Il faut renforcer le secteur privé, comme lui, comme beaucoup d'autres. Si on va arriver à régler le problème de l'emploi des jeunes, il y a un seul levier, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est le secteur privé, c'est des gens comme lui, c'est des entreprises encore un peu plus grandes.